mbégte ñëw fii ci parcelle li ci topp laa mënul tudd parcelle non assainie parce que bu dee parcelle assainie la li fi xew ci ay jafe-jafe du fi am parcelle yi ñun bu ñu ñëwee au pouvoir incha allah à partir du 24 mars dinañu assainir les parcelles. waa parcelle lay wax bu ñu tegee réew mi ci sama loxo je prends l'engagement de régler les problèmes d'assainissement et d'inondation de parcelles assainies ku ma xam aux Nations Unies bi ma fay soog a dugg j'étais le conseil régional de la CEDEAO et des Nations Unies sur la problématique des catastrophes naturelles notamment des inondations loolu du fii ci Sénégal la commencé liggéey bi def naa ko ci Niger def naa ko ci Ghana def naa ko ci Gambie def naa ko ci Mali def naa ko ci feneen